dama bëgg sama wax sama frère libéraux yi comme résultat yi ñi ngi génn man nag maa ngi sant waa Mbacké waa Touba Touba awma seen fay parrainage yi gis ni si 45 jours Touba jox nañ ma 156 000 parrains fay te loolu ay jàmbaar yu rëy waxuma ñi nga xam ne dañu àndal si àndal man waaye am na ñoo xam ne dañu ñëw wàll si ma sonn si lool may leen ma ma lim si benn jàmbaar mooy Serigne Modou Bousso Dieng gannaaw loolu may leen ma ma lim ñaari soxna yoo xam ni wax naa leen lim ngir njabootu sëñ Tuubaa ngir seen taxawaay soxna maam Xari Mbàkke soxna maam Faati soxna Bintu Diop soxna Mumi Jaxate waaye nag sëñ Soyibu ale loom Aziz Gaay ak bureau bi yëpp maa ngi leen wax santal ma waa Mbàkke santal leen ma waa Touba ngeen xam ni sëñ Modou Kara ma sàmba nga ànd ak man yàlla na ma la sëñ Massamba fayal loolu moo aussi mooy sama diggante ku lim jiwum sëñ Cheikh solution sama digganteeg sëriñ Dan mu sëñ Moustapha Massamba ak ñi fi nekk yëpp sëñ Gala sàll ak ñi fi nekk yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm étudiants yi aw ma seen fay yéen a ma jëkk investir ah ah comité organisation bi aw ma seen fay li si des dama bëgg wax sama frère libéraux yi fii laa leen di lancé yàgg naa leen wax ni sëñ Cheikh du ma porter wax naa leen ni man may solution bi képp koo xam ne rejeté nañu sa parrainage ñëwal jàppale ma nu jële fi Macky Sall man lu may doxal mooy programme libéral bu président Ablaye Wade libéral social ñëpp maa ngi leen di tàllal loxo bàyyiwuma sama benn frère libéraux man maay ki nga xam ni ëllëg jaay doole dana gëj senegaal ñi ñu neewal doole di Karim Wade di xalifa sàll ak ku mu doon danaa faj seen soxla Sénégal danaa fexe ba justice am fi kenn dootu fi jaay doole kenn danaa fexe ba senegaal yi gis seen bopp jigéen ñi ndaw ñi danaa jël ci budget national bi danaa jël ci ressources yi nga xam dafa jóge ci petrol bi danaa ci jël lu takku fexe ba jagleel ka ndaw ñi ak jigéen ñi ndaw ñi dama leen di dama leen di former dama leen di jox lu nu defee seen lu nu man liggéeyee jigéen ñi dama tàyyi ci comp bi nga xam ni Macky Sall daf leen koy compal man dama leen di tibal microfinance mooy compal te jigéenu Sénégal am na nu jom rawatina jigéenu Touba jigéenu Mbacké dama leen di defal fi ay projet il foog que Touba am ay ba ñëpp man fi liggéey il faut que Touba am unité de transformation Touba dafa yelloo lépp ñee yeewoo Touba gannaaw Dakar yeewoowuñu fenn li am Touba amul fenn si mbooloo ak si économie kon wax nañu jàppale Touba ba tu ba nit ba képp koo xam danga fi dëkk daa war man liggéey daa war man daan sa doole loolu sama bëgg-bëgg la lenn moo si des mooy wax immigré yi man maay ki nga xam ni maa jëkk fii lay wax parce que waa Mbàkke Touba Diourbel dëkku immigré la man maa jëkk créer le salon de l'habitat fexe ba immigré bi nekk am kër loolu nag am na yeneen xam-xam yu ma si am daa nu jël ay terrain yoo xam dañ koy viabiliser xam nga terrain yi soo ko viabiliser trente pour cent si coût logement bi dafay wàññeeku ma jox ko immigré yi wut banque boo xam daf leen di lebal xaalis su leen lebalee xaalis ñu am ay kër danaa leen jàppale aussi si ay projet de retour ndax nu mën ñibbisi Sénégal ku bëgg ñibbisi nga ñibbisi ñun xam nañu xam-xam bu wóor bu nu jëmale man ko jëmale kanam si réew mi rawatina nag gars yi nga xam ni danoo danoo nelaw ba tiit si nelaw rek ni jël naa décision nangam Macky Sall ak nitam danoo nelaw ba tiit si nelaw rek ni fii laa jëmale Sénégal moo tax coono bi bëri xamuñu vi amuñu vision